waaw ñëpp a ngi ci waaw waaw waaw waaw mu ne loolu mooy lam la waxoon rek mu ne ba mu la xamee rek la la nangul sa taalibe